nataal ñaar mu dee ba dekki yéesu nekk na ñeent fukki fan ci kaw suuf nit ñu bari gis nañ ko te wax nañu ak moom ndax liggéey yéesu muy doomi yàlla jeexoon na ci kaw suuf moom noppi woon na dellu ca baay ba ca kaw asamaan ci loolu yéesu ànd ak ay xaritam ci benn tund muy wax ak ñoom mu ne leen damay dellu ci yàlla baay bi waaye dinaa leen yónni xel mu sell mi ndax ngeen mën a déggal samay kàddu ci loolu yépp ay xaritam ak ñépp ñi nar a doon ay xaritam dinañ ko mën a topp yéesu ne leen tamit ay xaritam war nañu ko seedeel bi mu waxee loolu lépp ay xaritam yéesu yëkkati ay loxoom ca kaw te barkel leen ba noppi yéege asamaan ay xaritam di ko séen di ko séen ba gisatuñ ko ci loolu ñaar ñi yàlla yónni di ay malaaka wàcc seen biir ne leen lu tax ngeen taxaw di xool asamaan si ndax yéesu bi ñu dindi ci seen biir yéege ko asamaan noonu lay delsee tey ji yéesu mu ngi asamaan waaye benn bés dina delsi te jël ñépp ñu doon ay xaritam ndaxte yeesu daa bëgg ay xaritam dëkk ak moom fi mu nekk